Oh. marhaban bikum Dora Gaye homme d'affaires jàllale nañu ko ca kaso ga fanaan na fa guddeem gu njëkk allah Dakar Presse yéen kaay moo ñu ko xamal Tribune yéen kaay ne Dora Gaye kay tiisuma ko mbaaw mi ngi ci ay jafe-jafe yu métti ndax xàttekat ba ginnaaw bu mu ko dégloo fa santaane ñu jàllale ko tëj ko ca kaso ga bés bi yéen kaay ne tabaski bii di ñëw Dora Gaye ca kaso ga la koy feetee yéen kaay bi ne waaye du moom rek de baa jaxate imaam ndaw ñoom ca kaso rëbës ga fa la ñuy feetu tabaski bi ndax ñoom ñaar ñooñu xàttekat ba fa santaane ñu tëj leen ñetti weeru kaso yoo xam ne fañ koy tëdd vox populi dëggal ko ne baa jaxate imaam ndaw ñetti weeru kaso la leen yoon daan yoo xam ne fañ koy tëdd ba pare fañ leen a kenn ku nekk si ñoom ñaar ñaar fukki junne donte nag lañ leen doon topp ci wàllu wax kàddu yi ñaaw koo xamante ne fa yor ndombo tànk lenn ci cëru président muy premier ministre loola moom fañ koo teggi maanaam fañ leen caa relaxé li ñu leen teg ay daan nag mooy fa ñoo joxe xibaar yoo xam ne maanaam du dëgg fañ doon sos yàq moo tax ñu daan leen ñetti kaso bés kenn ci farandooru Ousmane Sonko yi muy Alassane bu Sonko moom it takk dere teg nañ ko loxo dig fañ ko jàpp xam nga lu tax fa wax kàddu yi ñaaw jëmale ko ci procureur ak ab àttekat moo tax yoon teg ko loxo fi mu nii la woon wan ni na de farak Sonko ak Jomaay ak farak président ak farak nguur ak ñàkk farak nguur a ci ku jàdd ci yoon yoon fa lay teg loxo teg la daan yu war ci yow moo tax Alassane bu Sonko mii Sonko làqut ko fañ ko bàyyi yoon mu def liggéeyam léegi su ko yéen kaay ne ñi xamlanteeg bi na ma jambal jaañ kay faa ko jàqal fi mu toll ci ay problème yu mag ndax yëf ya mu nga xamoon ca diggante 2020 koy xayma ci 91 millions si ko yéen a kaay moom fa laajte ne lu mu a fay fisc yoon tegu ci kaw mu war koo fay te lépp jaar yoon nag wala boog gars fa ñoo xam yéene sëkkatal taskatu xibaar yi en njiitu taskatu xibaar yi patron de presse yi fa ñu xamal ab ndaje daar daar ni ki suba <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy toog ak léegi ñaari weer rek la ak lu topp terewul ñu bëri fañ leen di xaxar naam ñoo ñu lii waroon nañoo def lii defuñu ko dugg na fi génn faa enquête yéen a moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom léeg si ko yéen a kaay mooy ndëpp ba ñuy amal ci wàllu yoon muy assise nationale ci wàllu justice fa xam boo xam ne ba léegi jubawuñ ca yaaw seetal président de la république nekk ki jiite conseil supérieur de la magistrature fa ñoo xam doole procureur nga xam ne ku ko neex xam na sañ-sañ jàpp ko ak yeneen pouvoir yu am info yi ne kaay ne mbootaayu attekat yi ci Sénégal ñoom fa ñoo d'accord ne président de la république fa war a des di nekk ca biir conseil supérieur de la magistrature waruñ ko fa génnee ci génnee ay dogal ngir jubbanti gàgganti pasar pasaree xalal ja am ci aéroport Blaise Diagne du kenn ku ma njiit lu bees la Cheikh Bamba Dièye source ay yéen kaay na fa jël dogal litre essence yu bëri yoo xam ne fañ ko doon jébbal ay chef de service ak ñu ma la mënta wax yooyu yëpp fañ ko wàññi Abdoulaye Dièye mi nga xam ne nag jiite woon na fi ci jamono aéroport Blaise Diagne boobu ay dëggam leeral xibaar yi fi génn démb ñu naan fa xam liggéeykat yoo xam ne fu ñoo bëri ba jégg doyo moom moo leen jël ak tappale ga fa nekk ak tasaara xaalis baak lañ leen di fay si sare rek nee loolu yëpp du dëgg moom ba fay jógee loolu xamu fa woon ko weddee ca laas yéen a kaay ca leesi ko yéen a kaay fa ko gën a leeral ne man recruté wu ma lu dul 182 agent laneen lu ca yokk na kaneen la waaye du man faa bëgg mu leer la leer témoin yéen a kaay wax ñu ko mooy Amadou Ba taxawalut parti politique de na xibaar yu génn démb na parti bu bees ak dugg na fii génn na faa loolu daraa ca xamul ab mouvement ko doon jàppale moom lañ gis waaye ab parti moom ko man ma taxaw ci l'observateur bi xëy di ñu nettali bëccëgu set setal bi président Diomaye xoote woon ca diwaanu Kaolack ndangaan Fallou Kébé président AS Saloum fa faa defati jëf ju rafet yaaw seetal ñaat téeméeru defukaayu mbalit moom la jox école ya ak police loolu lu baax la li baaxul nag te xam Kaolack ndangaan mooy dorog bu bon bu ñuy mëq bu bëri bi nga xam ne fi mu toll nii fañ koy jàpp ci diwaan ba ci anam gu bari abarki démboo jaay la duwaan jàpp fanweeri kilo dorog bu bon boobu ca kër ayib léegi démboo njaay duwaan tegaat na loxo jàppaat nañu fanweer ak ñetti kilo dorog bu bon boobu ñuy mëq ko fóon ca gànjaay le quotidien yéen a kaay moo ñu ko xamal wal fajir yéen a kaay ne man daal faawaaru dorog bi ñuy jàpp Sénégal fi mu toll nii fa bëri ba jégg dayo te puudar bu weex bii mel ni sunguf meew nga xam ne boo ko mëqee fu ngay gis bi di bëccëg man dina tatt te fay dofloo nit baaxut fay yàq nit mbaadu Sénégal fa bëgg a jéggi rëdd bu xonq bi maanaam dem bañ jàppee ko réew moo xam ne daal dorog ba fa fay jaabaa jonge commissaire Keita jiite woon fi OCRTIS ne gis ngeen dorog bu bon bii soo gisee mu bëri ci réew mi fay firndeel ne ko fi soxla rek ndax ñi koy jaay bu leen wóoroon ne suñ ko andee Sénégal du jar duñ ko fi andi waaw waaw ba tey ci wal fajir yéen kaay ne man faa gis ne daan yi nga xam ne fañ koy teg képp ku ñu jàpp ngay jaay drogue bon boobu daan ya fa xoyof waaye bu diisoon gann kon ñi koy jaay fa ñuy moytu suñu réew mi drogue pëndëx bi moo gën a bon ci drogue yi xemu ceeg benn fay dof nit fay ray nit si du quotidien na xam na beneen trafic bu sonal Sénégal waaye du drogue nag mooy trafiqué bant yi ñuy sàcc ba léegi jeexagul ci réew mi si du quotidien moo ñu ko xamal la mu moom la soleil yéen kaay mooy baykatu Sénégal yi fi mu toll nii fa ñoo bëgg a soppi li ñuy wax coopérative ñoom ñëpp ci lañ bëgg fi mu toll nii ndax la ci ñoom te xamoon na fay jamono waaye fi ko bëgg a dekkelaat béykat yëpp taxawal seen i di mën di jot seen engrais ak seen jiwu état mën tamit di leen dimbale jaaree ko foofa coopérative lu baax ci béykat la li baaxul nag te ñaaw ab étudiant moo ko def fa xam xale bu jigéen bëgganteeg moom xale bu jigéen ba avocat la ah ñu dem ba mu yàgg xale bu jigéen bi na ko man daal faa bëgg ñu bàyyante nabatuma la bi mu ko bàyyee nag farwa mer mbooleem vidéo bu ñu doon defee yëfu saay-saay la dépêche yéene kaay moo ñu ko wax te ma nga amee nag ca diiwaanu Jurbel yow seetal fa xam ab délégué médical mooy ñooñu nga xam ne ñooy jaay garab yi ci pharmacie di leen ko yóbbu ak yooyu waa ji daal fañ koo jàpp dóor ko fa ba mu tàlli ñeret dee wett faatu ñàkk bakkanam allah yéene kaay bi ne tegagum nañ ne kenn loxo jàpp nañ ko koo xam ne fa ñoo njort ne bokk na ca ña ko rey hmm, waa ma ne rey nit daal ci maa tey suñ jàppee borom fañ koo war a loolu rek moo fi mën a jëlee Sénégal rey gu bëri gi ngeen di dégg ndax kenn ko bëggut su la wóoree ne soo rayee nit fañ lay rey subaa doo ko rey ngir yàlla nañ jëfee atte yàlla bi moo ñu dàq atte ndax moo ñu bind te atte moo gën a màndu te mooy ku rey nit ci tayef fañ ko war a rey